ma commencé nuyoo bi ci Babacar Pascal Dione mi nga xam ne mooy suñu gan tey comme ni ko mbokk mi waxee muy gan gu rëy lu tax mu doon gan gu rëy moom lu tax mu nekk ci ñun gan gu rëy moom dafa nekk fu xaw a sori waaye mu jël yitte def ko ci Jobaas rawatina commune bu nootoo Jobaas mu ñëw fekk fi nattangoom nga xam ne moo fi taxawal Macky Sall muy Alioune Sarr te ñun dégguñu olof waaye dañoo faral dégg di olof yi di wax ni ku la yéene mbooy du la tonil waar te dafa mel ni Babacar Pascal Jonn fu mu dekk bu bu bàyyi ko foofu ñëw fii ci askanu Jobaas rawatina askanu Palam di bokk ak ñoom seen eh, mébét walla seeni soxla di leen ko laaj mu soxal ko ba mu di ko laaj kon koo ko wax dëggum yàlla bu doon mbéy ma ne mu ngi mu mu ngi bugg mu ngi bugg a tonil waar ñi nga xam ne ñoom la fi fekk nit nag ak loo ñàkk-ñàkk ngërëm ku ñëw fekk la ci sa waar jàppale la ci bi nga xam ne mbooy waroon na fa mën a nekk te dootu fa ne il faut nga gërëm ko te itam il faut nga am sañ-sañ nga wax ne diw moo moo moo ma toll waar wi moo tax booylewu ma foofu bu ñu jógee ci loolu mooy damay dellu gërëm waa dëkk bi ndaxte ñun dëkk bi paalam ci aan réewul te ay béykat lañu béykat nag boo ñëwee fekk ko heure bii nga woo ko mu mën a ñëw kon jar naa gërëm jar naa sant tey jii lu tax mbooloo mi toll nii waroon naa mën a ëpp nii waaye jafe-jafe ndox lañu am demb ba léegi mooy suñu ndox mii nga xam ne moo jógee ngol fa ñu ñëw fii teew bi dafa am fu mu yàqu loolu moo tax mais budul woon loolu mbooloo mi dina ëpp nii képp koo xam ne gisoo ko fi ñëw ñàkku fii ñëw ngir eh, doyadil mbir mi wala muy bañ koo soxal xëy na dafay ñëw ngir ngant doomu aadama xëy na dañ koo mooñaale ak ngant loolu ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax si jafe-jafe ndox moomu lay jëkkee ndaxte man dem naa dëkk bu ñuy wax ndangaan sàmm ba jife jifeer eh, ndox mi lañuy naan te sa tuddoo yaa ngi nu ñu jàkkaarloog ñun te paalam ci amu ci soxla nañu ko li ko ñaareel mooy am nañu jafe bi nga xam ne fii bu ñu jaaxal la ndax comme ni ma ko waxee léegi ay béykat lañu waaye dañuy faral ñaare saa yu ñu béyee ba gis suñu mbéy rek dafa am benn ruur bi ñëw yàq ko te ci man dara mu am ay at at yoo xam ne nag eh, jooytu bu ne nañ ko loolu daal képp koo xam ne eh, eh, mën nga ñu ciy jàppale daal loolu ñu ngi la koy ñaan. lu lu ñetteel jafe-jafe yi ci dëkk bi. nga xam ne soxla bu taxaw la bu jàmp la mooy dañ fi am ay arab boo xam ne dañoo tàmbale liggéey bi waaye bi ñu ko tàmbalee doole bi néew na ba nga xam ne daanaka départ bi amagul solo ñu ne woon nag bu ngeen bu ngeen fi bu ngeen ñëwee fii tey mbir moomu daal ñu waxtaan ko ak yéen jooytu leen ko lépp lu ngeen ci man ndax yéene nañu eh, Babacar Pascal Jonne yéene nañu ko mbir moomu mu def ci loxoom ndaxte comme teyaaba la nit boo ko amee muy sa mbokk te nga buggal lépp luy eh, indi tiyaaba da nga da nga koy yéene mu dugal ci loxoom bi ko ñeenteel te foofu rek layteje tëjee mooy ñun ni fii machine boo xam ne machine wallu la waaye yàlla dafa dogal bi mu ñëwee ba tey dafa am ay paan yoo xam ne euh, xamuñu xamuñu bopp bi ak génn bi waaye indi indi nañ fa benn indi nañ fi benn technicien boo xam ne bu ma ko xoolee daal nee na moom mën na koo defar te machine bi nga xam ne nag liggéeyul fi muy jëlee lu lu mu lu muy li ñu koy defaree loolu moo ñu xaw a jaaxal ñu ne loolu itam dinañ dinañ ko boole ci mébét yi waaye loolu gannaaw loolu bu loolu lépp passé nag Babacar Pascal Dione ak képp ku mu àndal bu su ma mënoon a jaar seen tur dinaa jaar tur ci tur yëpp waaye gërëm naa leen sant naa leen maa ngi maa leen di ñaanal yàlla Babacar Pascal Dione mi lépp loo xam ne Macky Sall jox na ko ko yàlla ko ci yàlla may ndam ci dara bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum mi yéen maa leen di nuyu di leen sant Pascal Babacar John ñu ngi lay nuyu di la sant ci sa tànk bi nga jóge ba ñëw ba fii ñun de amuñu luñ la fekk yàlla lañ la bàyyi jigéen ñi nekk sama ginnaaw ñoom ñëpp maa leen di nuyu di leen jéggalu parce que ku ci nekk yaa ngi bàyyi sa ndaal amul ndox ñépp ñëw teew fii léegi nag yow ci sa bopp jëmu bopp yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal ñu ngi baalu àq di la baal àq ñun luy suñu problème mooy lan suñu machine bi nekk fii am na problème amuñu liñ ko defare ñaareel bi ci topp yoon bi ngeen jóge gis ngeen ko baaxul ñun ñu ngi dëkk ci yoon yi bés bu ne amuñu yoon ñetteel bi mooy groupement bi amul kayit te bëgg nañu mu am këyit te xamuñu nu ñuy def ba jàll ñun ci suñu bopp lépp lu ñuy yëngu bëgg nañu feeñ mais nag dañoo gëlëm xamaguñu yoon bi ñu bëgg ki ñu gunge ba ñu dem te ñu ngi am yaakaar ne yow dinga nga ñu gunge ñu dem yàlla loo bëgg nag yàlla moo lay fay ñu ngi lay baal àq di la baalu àq yàlla na fa bëgg a egg nga jëm fa wax nag daa neexul lu ma ci juum xam leen ne ci man la du jigaay jërë ngeen jëf jëloon décision waaye nag cin boo gis laaj nañu xorom wal ko tuuti man li chef de village wax sànq fu léegi foofu rek laay jamaat waa dëkk bi ñu ngi leen di gërëm ba ci kanamu yàlla ndaxte heure bi man ma nekk xale bu tuuti ma mobiliser mbooloo mu toll nii ñu ñëw fii ay la maa ngi leen ciy gërëm di leen sant waaye nag dafa fekk ni politique ci boppam ni ñu koy waxee politique dafa tekki boppam man su ma jàngatee politique moom mooy fexe ni ngay saytoo sa gox gérer kon loolu ci loolu la ñuy dund man nag balaa dara maa ngi gërëm sama naataangoo bee Abdou Diallo mais mi ngi dëkk be god jàpp leen ni bés ni ki tey fu ma yendu àll xam leen ni maag mooma fu ma fanaanee àll maag mooma ñooy yëkkateendoo ñooy xàcceendoo ñooy dóorandoo waa dëkk bi tamitam maa ngi leen di ñaan nii ngeen defee nii dimbali leen ñu ngeen jàppale Babacar Pascal Dione te yàlla tax ngeen jàppale seen bopp nee naa leen nag militant baatam bi baatam bi baatam bi mooy sa carte vote boobu kese fii bu feesoon dell ak ay nit te ñoom amuñu carte électeur wa ilaa ñu am carte électeur nangu wuñoo voté feesal mbooloo rek laa gis kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a bon léegi xëy na peut-être bon da am fi ñu ne feneen fu ñuy dem léegi jarul man may kii kaddu ci li ñuy wax mouvement Doolil Macky MDM dafa doon mouvement politique boo xam ni dafa juddu pour jàppale président Macky Sall. pour yokk doole président Macky Sall ci gox yi xam ngeen ne fii ma ñëw muy Palam Coyaan yéen a ko waxal seen bopp bariwul ay responsable politique yi fi ñëw te dañ fee war a ñëw nag di wax ak yéen ngeen xam président Macky Sall fa leen teg li mu leen liggéeyal ñu teg ci baaraam ngeen xam ne lii président Macky moo ko def li ci des ngeen yeggee ñu ko ñun ñu yeggee ko ko man ko faj loolu moo tax responsable politique warul toog rek ci bureau dafa war a génn bureau dem fekki population. dem fekk militant yi déglu seeni tawat jéem a faj seen aajo lam mu faj mu yegge ko kilifa yi loolu mooy rôle lu responsable te ñun looloo tax ñu sol sunu dàll fas yéene wër Sénégal yépp nag dañoo tàmbale fii ci Jobaas mais buñ ci jógee dinañ dem ci yeneen i gox caajaay fee ma dëkk taxawal naa fa lu mat fanweeri comité Thiès ñu ngi waaj a taxawal comité yi Jobaas taxawal nañu dimanche bii passé juróom-ñeenti comité tey jii dinañ taxawal lu met juróom wala juróom-ñaari liggéeyu politique noonu la loolu la Macky Sall santaane te ñun responsable yi ñu bàyyi xuloo bàyyi xiiroo bàyyi ŋaayoo bàyyi siisante boole sunu doole jébal lépp Macky Sall parce que président loolu la soxla man ci tànk yooyu laa nekk te ci tànk yooyu laa leen di woo ngeen jàppale ma ma jàppale Macky Sall politique nag moom noonu rek la góor day jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla yéen mënu leen yegg ci Macky Sall ci Mamadou Diouf ngeen mën a yem man ma jàpp ci mag yi noonu rek la kon ñu góorgóorlu yéen samay mbokk séeréer ngeen yéen naa leen lu baree bari xam naa président Alioune mu ngi leen di jàppale bu baax parce que ku ñëw fii ak distance bi ni mu soree nga gis ni courant bi si na ba fii nga gis ni ay moulin à mille ñu ngi fii donte pandémie mi ngi fi au moins am na ñoo xam ni amuñ ko kon président euh, euh, le ministre Alioune ngeen gën koo jàppale gën koo yokk doole man ak Alioune li ñuy liggéey benn la dama bëgg ngeen xam loolu man ñëwuma pour yàqal ko damaa ñëw pour dooleel ko parce que moom ci parti bi mu bokk parti boobu coalition Benno Bokk Yaakaar ci la bokk ñoom bokk na ci ñiy jàppale président Macky kon su ma ñëwee di jàppale président Macky Sall ñëw ci goxu Aliou Sarr day baax ngeen xam ni man ak moom sotti ci ak def ci la dañuy yokk doole rek xeexante wuñu loolu bëgg naa ngeen xam ko parce que moom aussi responsable la sama mbokku séeréer la kon waruma koo yàqal dama ko war a dooleel te tànk yooyu ci laa nekk maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax ñaari comité yi ma fi fekk nag man ni may faral di liggéeyee mooy comité bu ma ñëw installé bureau bi dina am lu ma yëkkati loo xam ni dama koy teg ci loxo bureau bi ñu jox ko trésorier mu nekk fond de caisse pour comité bi ngeen jàpp ci di ci foraatu di ci liggéey bariwul nag parce que man yoruma benn ndomba tànk politique lii ma leen di dimbalee nii sama ñàkku bopp la sama salaire la sama liggéey laa ko jëlee. mais Sénégal jaral na ma ko su ma fayee ko sama weer def may jaral genn wàll bi ma jox samay waa kër genn wàll bi ma denc ko doomu aadama bu ma ci mën a jàppale ma jàppale la politique bi may def lu ma ci mën a def ma def ko ci kon maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax ñaari comité yi fi am dinaa yëkkati ñaar fukki ji ni jox leen mu nekk seen fond de caisse yéen ñaari comité yi ngeen tàmbali ci liggéey nag damaa bëgg nag bala maa dellusiwaat fii ngeen dama ñaar fukki junni yooyu léegi doon na téeméeri junni loolu laa ñaan yàlla mu doon yokkute ci yéen jërë ngeen jëf

publique ñaari événement yooyu nag doon na ñaari événement yu am solo yoo xam ni moo ñu tax a jóg bëgguñu nag bàyyi ba ñu ne suba la wala ginnaaw suba la élection yi ñu soog a jóg di wax ak yéen dañoo jóg wax ak yéen ca ba muy teel ngeen mën a xam lii di ñëw kenn bañ a jaxase seen xel li ñu war a def mooy élection yi di ñëw muy élection député yi yéen ñëpp na ngeen góorgóorlu président Macky Sall ngeen jox ko majorité ci assemblée nationale mu bëri fa ay député ëpple fa ay député liggéey boobu moom la ñu door nii buñ ci dolee ñaari at yéen ñëpp ngeen falaat ko mu am deuxième mandat mën a eggali liggéey bi nga xam ni sumb na ko loolu moo mun a tax responsabilité yi mu jox Alioune mu man ko ko continuer di ko ko dénk Alioune aussi man di leen gën a jàppale ñu mel ni ñun ñii ñu ñëw dolli ci jàppale boobu ngir doole Macky Sall gën a bari fii ci diwaanu Diobass euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax am nañ fi benn comité boo xam ne bureau baa ngi nii defe naa awandoo yi kuy ana awandoo boo xam ne kenn xamul ban àpp la am mën na commencement mais àpp bi lañu xamul woon tey la ko yàlla dogal ndey astu mi nga xam ne sama doom la mu ngay séyee baba moom moo toog benn bés ba woo ma ne ma bàjjeen ma ne ko ah, mu ne ma dafa am ñu ma bëgg a su ma leen yebalee bu ñëwee nga jàppaleel ma leen ma ne ko loolu amul benn problème ndax waa dëkk bi xam nañ ne xale nga mais sa loxo set na man nga wax ak mag man nga def ak mag kon bu ma yebalee euh, Babacar Pascal Dione ci turu Macky Macky élection yi passé nii bi muy ñëw booba kenn toogalu ko ci dëkk bi mais jaam xay ne yàlla dogalam Macky gagné Ngol fañe 100 pour cent ñu jël ko rek may ko suñu carte te tey jii defe naa tey la waalo gën a ndax gis nañu lu mu commencé di def mu ngi def ñuy déglu amuñu rajo xam amuñu courant mais am nañu rajo bu ñu xëyee dañuy déglu journal yi lu baax li muy def ak am na lu mu def ba fii CM bi taxaw na ci kanamam ah am na yoo xam ne ay yoon yoo xam ne commencé nañ di ko defar kon defe naa ne Macky bu ñëwee fii yebal Babacar ni bu neexee yàlla xolam dina sedd bu élection ñëwee waxuñu ngir weet bi bu ëllëgee ñu ñu lii lañ waxoon nañ dem ci mbañ gàcc bi di ko toroxal loolu duñ ko def Macky dugal nañ ko suñu xol bu yàgg booba tey ñëw bu ñëwee tey dañuy feddaliwaat rek mënuñu leen ñàkk dalal dëkk bi nag yaatu na te rëy na dëkk bi dafa am loo xam ne moo fi nekk wat gaa la yegoo dañu yegowul yëpp bu ñu yegowoon yëpp lii ñu bind ci kër bi ëpp nañ ko mille fois waaw bu neexee yàlla ñëpp ay ñëw wuyu ñu beneen yoon même Babacar bu ñëwule bu neexee yàlla yonent ba dinañ ko jàppale bu loolu paase jigéen ñi ci dëkk bi nee nañ amuñu masinu bojja amuñu masinu soq loolu bëgg nañ ko jigéen ñi nee nañ bëgg nañu ku leen di jàppale waa Mbella surtout kër gi ñu nekk nii Ngolfane am na courant mais waa la amuñu courant xam naa na xëy na du woon seen yéene ci chef de village du woon yéeneem mais jàmm xay yàlla lay dogal xaw ma nu mu demee noonu ba ñun amuñu kër gii rek moo des ci ngol fañe amul courant ak dëkk yu ñu wër am na yoo xam ne amul courant fii nag pax mi yéene nañu mati suñu carte te bu neexee yàlla dinañ ko ko jox suba ba ngoon jot ñu ngi ci gannaaw mati mu ngi dimbali mag ñi ma ciy dégg néew gi doole yi ma ciy dégg kon Marème Faye Sall ci boppam soo leen ko gisee nga ne ko Marie Ciss nee na Marie Faye Ciss lañ koy wax ñu ngi koy décoré ne ko na ñëw ci dëkk bi gisee ñii waa Ngol Fagné ak pax mi pax mi yëpp daal bëgg naa ñu ñëw may ma tuuti rek may waaw dina ñëw euh, bëgg naa mu ñëw di gisante ak jigéen ñi di defante ak ñoom ndax maa ngi dégg chaque jour wala bu ma génnee gis télé gis ko muy dugg ci ruq yi ruq yu tilim mu dugal ruq yi sax Marème fay Sall seetluwul kenn ñëpp lay dugg di defante kon jéeg bu mel nii bu wàccee ci dëkk bu nekkee ci ku dëkk bi mu boote ñu ñun ñëpp jigéen ñi ci senegal ñun dinañ ko jàppale te yàlla tax boo ko gisee ne ko dinañ ko jàppale fukki loxo la ko ëpp na ñëw

ñun nag ñooy jënd li nga xamante ne ñoom xam pour di am lu ñu dara ñu def ci Sénégal ci la ñuy def ci jëm kon dara ñu ko xam ne dara ñu koy wax nga xamal waa Sénégal nga xamal président Macky Sall ci problème yi premier problème mooy loolu deuxième problème bi am ci mooy am na ñu koy am pour man comme ki nga xam ne problème boobu comme ki nga xam ne problème bi vraiment am problème bi actuellement nga xam ne problème bi koy am